asalaamaaleykum mbokk yi euh, ñi nga xam ne tey jii ñu ngi woon tey jii si palais de justice palais de justice tey affaire u Bébé Diène moo ñu àndi woon Bébé Diène Mamadou Thiam si lañ la tudd ñu gën ko xamee ci Bébé Diène Bébé Diène bu ñu ko xamee xamee ko écrit sumbe jun nekk mbër bu ñu ràññee nekk ku mën a bëre nekk xale bu xarañ tey moom moom la juge doon àtte tey bu ñu woowee Bébé Diène mu ngi doon sol sabadoor bu xonq ñëw ak dal buñ ko laajee ndax moo def wala deful dafa ne ñett moom deful juge bi ne dàq nañu yëf ba le juin incha allah bébé Diène ñu rappelé ni que bébé Diène ñu ngi ko doon toppee ci affaire vol à l'arraché vol à l'arraché mooy maanaam këf téléphone mu àndoon ak benn copain am si scooter donc bébé Diène dina taxaw le 26 juin incha allah fii ci procès fii ci tribunal bi ñu xool bébé Diène nan lañ koy àttee ndax ko bay am duñ ko bàyyi affaire à suivre jërë ngeen jëf.